الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بوكي السلام عليكم ورحمة الله نيجي سنت يالا دي wax alhamdulillahi rabbil alamin bi ñu yàlla mayee ñu fekkeeaat bés bu teg tedd bi nga xam ne moom lañ dëgmal ni ki suba muy màggal juddug Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ñu ci sant yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin ñu ñëw fii ci kat euh, Cheikh Mouhamad di imam ci almadi nekk fa taxawal fa juma ak liggéey bu rëy samp fa daara ñu ñëw tey nag pour ndokkeel ko ndokkeel ko itam ci juddug Mawlana Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass bi nga xam ne moom lañ mal ni ki suba nga xam ne jox na ko itte su bés boobu jublu see itte yu mën a xam ci barab bu mën a xam daf koy bàyyi jublu si Taïba Niassène ànd ak teraanga yu rëy ñu ñëw fi nag tey pour ziyaare ko pour ndokkeel ko pour ñaanal ko yàlla itam ci yëngatoom ci diine ci yëngatoom ci tarixa waaye ci yëngatoom ci faydu du Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass imaam Mohamed gannaaw bu ñu la ziyaara ndokkeel la mm, ci sa bésu maam bi nga xam ne bés boo fonk la xam ne saa yu jublu see rek dana la jaral nga def ci lu nekk jëm ci taaral barab yi ci daluwaay ci gan yi waaye jëm ci dimbalante itam ak jaami yi ñu ngi fi nii dajee fi tey nga yëkkati ndimbal jagleel ko ñi nga xam ne ñoo farewoo ci jumaa ji loolu lu rëy la ngi ñaan ci yàlla jëf la yal na yàlla gis ko te yal na ko yàlla fay loo ko yàlla fay yal na ko yàlla fulandeel te yal na yàlla man loo la ko daay man ndax bés la boo xam ne lu ci nit def rek Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu nga ko defal ay ganam nga ko defal kon bu la yàlla man looyee nga def lii nga xam ne ñi nga ko joxit ci jaami yàlla yi rek la jëm loolu dëgg-dëgg ñu ngi la ci ndokkeel di la ci ñaanal yàlla di ñaan yal na yàlla xuutalal la yàlla saxal jëf ji itam yaa rabbi yaa allahu yàlla mën na loolu yal na ko yàlla indi waaye di am mbégte ci may gi ñu yàlla may ñu fekkee at bés bi di ci sant yàlla bu baax di wax ne li ñu fi tax di dajee du dara lu may ñun ñu yàlla jagleel ñu bokk ci toppam Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu te yal na yàlla dëggal loolu ñu ñëw fi daje tudd ay jaar-jaaram tudd ay baax-baaxam tudd ay jëfam fàttali ko nit ñi ngir ñu mën a roy ci jëf yooyu ci wax yooyu ci melokaan yooyu loolu rek mooy njëriñu bis bi ñuy daje ndax innal muhibba liman yuhibbu mati woon nit ki su bëggee ñeel la mu bëgg daf koy topp te bàyyi am na ñu ko xam am na ñu ko xamut am na ñu ko dégg am na ñu ko déggut am na ñu ko gis am na ñu ko gisut waaye suñ dajee fii fàttali ay jaar-jaaram fàttali ay jëfam fàttali ay melokaanam su boobaa loolu dana jëriñ ñi nga xam ne gëm nañ yàlla pour ñu mën a roy ci loolu ba mën a xàgg ci baax-baax yooyu loolu rek moo tax ñu fi daje ñuy ñaan ci yàlla nag yal na yàlla may ñu jàmm juñ xam ne jàmm la yàlla na yàlla tàggatal ñu mboolem xeetu waruwaay yi indi ñëpp ci jàmm delloo leen ci jàmm ñu ànd ak bépp yow ndax fii moom ku fi ñëw rek boo fi jógee ko dollee ko la ndax Cheikh Ibrahima radiyallaahu dafa wax ne ci waay bu barke bi nga xam ne ci laa wàcc yow yàlla yàlla nga jëriñ képp koo xam ne jublu si na ma fi kon nag képp koo xam ne ñëw nga Tayba rek amul sikki na da nga jëriñu rawatina nag ñi nga xam ne ñu mel ni imaam Mohamed nga xam ne ñëw nañ fi ànd ak indi seen alal ak seen dimbal ngir dimbale jaamu yàlla yi ngir taral gani Cheikh Ibrahima yi ñoo ñu amul sikki sàkk su ñuy dellu danañ ànd ak bépp yiw kon ñu ngi ñaan ci yàlla euh, yàlla yàlla àggale ñu ci gi yàlla na ñu tawfeex ak lépp loo xam ne wax nañ ko fi ci ay jëf yàlla nangu ko te yàlla nañ ko dégg te topp ko su boobaa rek ñu nekk euh, gën ci taalibe te lool rek lañ bëgg yàlla dëggalal ñu suñu taalibe ci Cheikh Ibrahim suñu dëggalee suñu taalibe may ñu mbëggeelam rek ñàkkatuñ dara taalibe bàyyi buy ñaxtu naan aw ma nangam aw ma nangam te yàlla boole kook bàyyi sax xamul lim xam bu xamoon lim xam gannaaw yàlla boole na kook bàyyi mu bëgg a bàyyi rek loolu doy na kon yàlla na yàlla may ñu mbëggeel ak Cheikh Ibrahim su boobaa rek danañ jëriñu ci saayir jëriñu ci baatin ñu ngi ndokkeel ñu fi teew yëpp imaam Ibrahima mi ngi nii ah, ñoo moom ñoo bokk jumaa ji ñu ay ndaw yàlla teg ñu ci jumaa ji ah ñu fonk ko jox ko cër parce que boo doonee ndaw ñu teg ci jumaa ji ñu mel war na itam nga jox cër loolu ci fuuglu ko damay wax ne képp koo xam ne wax nañ la ne ci imaam yi nga bokk rek jàppal na julli gu jot rek yow yaa ko war a jiite jàppal na julli gu jot rek yow yaa ko war a jiite waaye soo waxee ne ah man Ibrahima dey su ma demut baabaa nga fa déedéet bu fa baaba nekkul rek jumaa ji yokkal waaye soo waxee ne julli gu ne rek maa ko war a jiite baaba wax loolu keneen wax lool su boobaa rek danañ jox gëdd jumaa ji te loolu rek ci lañ ne ñu ngi ñaan ci yàlla ngeen ñaanal ñu ah yàlla dëgëral taxawaay yi may ñu wér ndax lu rafet rek lañ bëgg ci Taïba taxawaay bu rafet rek moom lañ bëgg ci Taïba ñu bokk àndoo dundal jumaa ji dundal dundal jumaa ji dundal daara yi dundal dundal waxtaan yi loolu rek mooy suñu bëgg-bëgg ñi ngi nii tey di bésu aji moomu xat lool suñ julee tàkkusaan rek dañuy mal ci tari alxuraan yi ci ay barab yu fasantikoo yoo xam ne buñ sañoon barab bu ne ñu teew fa ñaanal waajur bi def itte ba doomam tari waaye ñaanal si ndaara bi def itte ba taalibe bi tari waaye ñaanal xale bi tari alxuraan itam ngir xale yëpp mën a xemeem loolu jëm ci ndax ñun alxuraan suñ cër la te nit bu baxee cëram rek dootu doon dara yàlla ñu baaxee ñu gëm yàlla yàlla wàcci téere bi ci yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla baaxee ñu ñu bokk ci xeetu yontu bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu nekk karamam kon ñun suñ bàyyee alquran ko baax niñ ko toppee yàlla na royaat ci suñuy doom ci suñuy sët ba péncam yàlla yàlla mën na loolu yàlla ñu ko yàlla defal bi jaay nabil kër waa saabi saalina allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ah, mbokk yi ñu ngi leen di am mbégte ak kontaante lool ñun daanaka wax ji amul lenn luñ ci dolli lu dul ñaan ñaan moom lu nit ñaan ak noo mën takk yem rek nit sañ ñaan ñaan dolli ci maanaam côté boobu rek la ñuy ñaanee waaye du ne sax dañuy jël kàddu pour wax si ah, imaam Mohamed li imaam Baba wax dégg ko wax dëgg yàlla am la ci ñun fierté la ci yow ñun de biñ la xamee yàggut waaye biñ la xamee ak léegi xam nañu nit njariñ nga maanaam te nit nag lañ koy téye man fi ziyaadatin fa wa man kaana fi nuqsaani fa naaru awlaa bii mën nañoo wax ne ñun biñ la xamee yokkute la ci ñun waaye mel na ni yow bi biñ ñu xamee yokkute la ci yow kon nag nit ki waxtu wu nekk war naay góorgóorlu pour di am yokkute lépp loo xam ne ñaanal nañ la ko nag danañ ko ñaanal imaam baaba mii waaye danañ ko ñaanal bàyyi moomu ci sa wet bàyyi mii ci sa gannaaw dana ko ñaanal tamit maa man mii parce que ñii dañoo bokk ak ñoom bàyyi mii bokk na ci nit ñi buñ mëree tëdd muy bàyyi biti mii suñ gannaaw di nelaw ba yandoor yàlla ak moom la parce que moom mooy jaay ab bakkanam jëndee ko bakkan yi nii ñëpp pour di garder dëkk bi bàyyi moomu it maanaam jumaa ju waxtu wu nekk mu ngi koy dundal ci borom kurus la maa man mii tamit noonu kon su boobaa ñoo ñëpp danañ leen ñaan rawatina ki nga xam ne moom lañ teg ci kanam mbooloo mi ata suñ jarbaat bi suñ gannaaw sax noonu la mel ñi ngi ñaan yàlla nag lii yàlla boom mu doon suñ mujj ak jëflante yàlla bu mu doon it suñ gàmm gu te yàlla na yokk ci zahir doon yokkute ci baatin ñu yokk ci suñ jëmm yokk ci suñ xam-xam yokk ci suñ man-man yokk ci suñ xam-xam yàlla mën na ko yàlla nañu ko yàlla defal ci barke alxuraanu karim kontaan nañ lool lépp loo ci man ren rek yàlla na nga mën déwén lu ko ëpp lépp loo ci man ren rek yàlla na nga mën déwén lu ko ëpp te soo ko manee yàlla mi la xiiroon ba nga ko ba nga def ko yàlla na la xiiraan nga def lu ëpp loolu parce que nil hum wa sit hum bi qadri sidqin kullu muridin bi qadri shawqin wasalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim maa ngi sant yàlla di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam euh, di leen ziyaara euh, di ndokkeel adduna bi yëpp ci juddu bu màgg bi muy juddu Mawlana Cheikh Ibrahima di ci ziyaara Cheikh Mahamadul Mahi al Khalifa di ci ziyaara al di ci ziyaara ñëpp euh, di wax ne kàddu yu la kàddu kàddu kàddu ziyaara la kàddu ndokkeel kàddu sàkku ñaan ci ñii nga xam ne wax dëgg yàlla amuñu sikki sàkk ne amuñu leen féete kaw ci dëkk bi ndax tey bu yàlla doon wax ay nit ñoom lay waxat bu yàlla wàccoon tey ci ñoom lay jaar ndax néegi yàlla bi ñoo ko amee ñun nag dañoo ñëw tey gëm nañu barke am na ñu koy sàkku moo tax ñu ñëw di sakku ci ñoom barke xidmaal leen mooy xidmaal yàlla mooy xidmaal yonent bi mooy moo Mawlana Cheikh Ibrahima Niass moo tax kàddu yooyu rek lay laay wax pour ne ñëw naa tey pour sakku ci ñoom ñaan maanaam man gëm naa ne barke am na te gëm naa ne barke bu ma ko sàkkoo ci ñoom juum ndax liñ nekk moom maa ngi ko gis mbir mi du mbir ay dara ak i sant ndax ñoom ñi ngi waxante di jaa di daagu diggante jumaa ji ak ak ak seen kër yi te yonent bi sallallahu alayhi wasallam la wax ne képp koo xam ne gis ngeen ko muy def loolu séddaleen ko ak imaan kon nag wax dëgg yàlla ñun buñ sàkkoo ci ñoom barke ah damaa yaakaar ne sàkku nañ fi ñu war a barke kon nag kàddu yi loolu rek la ñu ngi jéggalu xeeb nañ ko trop nag bëggoon nañ lu ëpp lii waaye nag di sàkku ci yéen ñaan ngeen ngeen ñaanal ñu comme ñaan yi ngeen ñaan yi wax amin mu nekk ñuy gën a mën a def lu lii ba pare yàlla xiir ñu ci timit ndax jub moom du nit moo koy boppam man yaa di laa fool moo tat ngeen ñaanal ñu yàlla ñu mën a tege ci yoon wi te buñ jeng bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi leen ndokkal beneen yoon di ndokkal imaam yi di ñaan yàlla mu dëgëral seen i tànk wa sabit aqdaamana wansurna ala qawmil kafirin di ñaan yàlla mu may leen ndam may leen tawfiq yàlla musal leen ci yeneen yoon ak seen i pexe lépp lu ngeen bëgg yàlla yàlla defal leen ko yal na yombal seen koddaay yal na yàlla yombal seen seen lépp yàlla barke seen njaboot ba ngeen jékki ba seen i njaboot uutu leen ngeen gis ko waqar yaay neen yal na yàlla defal leen ko wax dëgg yàlla ñun wa ñun ñun xeeti Cheikh Ibrahima Niass yëpp ameel nañ leen njukkeel ameel nañ leen sant ci jumaa jii xam ne mooy jumaa Baay Ñas ngeen bàyyi seen itte yi bàyyi mënoon a dugg ay xalwa ñaan mënoon nekk di tukki di xaalis yëpp ngeen bàyyi ko toog ci jumaa jii di ñu représenté wax dëgg yàlla man kaddu yori laa doon wax ne daal maa ngi leen di tuuti naa ci sant leen tuuti naa ci gërëm leen tuuti naa ci ñaanal leen waaye maa ngi jéem di ci représenté taali taalib Mawlana Cheikh Ibrahima Sy di leen wax ne yéen yelloo ngeen sant yelloo ngeen jaajëfal ñu ngi leen di wax ne laa fadd fuuka ca kanam te liggéeyal bàyyi amul pertement yàlla nañ ci yàlla gën a bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun fi dunya wa salaamun fi l wa salaamun ya salaamu wa salaamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin